waa kay mi ngi noonu plateau petit déj dañuy def suñu ay kii suñu invité ñëw toog ñuy wàcc macha allah <laughs> sama stress quoi la ñuy dund. wala mu gën a taaw nga fii moom macha allah euh, coxo uh-huh. alors euh, dafa mel ni suñu invité dikk na ki di euh, Mouhamed Cissé ñu gën koo xamee ci moomoo leeral ñu nuyu la bu baax a baax dalal la ci plateau petit déj. soxna si maa ngi lay nuyu di nuyu Coro di mm-hmm. ñi nga xamante ne ñu ngi ci plateau bi. di mm-hmm. nuyu téléspectateur yu Walfadjri TV. très bien alors Coro dem lay bàyyi rek nga daal di tàmbale waxtaan wi waaw comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi bi ñuy eh, tàmbali ni ki mardi bi weesu dañu fee eh, wax benn sujet boo xam ne ni eh, dafa jóge ci réseau sociaux yi comme ni ñu ko faral di indee ab vidéo boo xam ne mu ngi doon circuler moom moomoo mii nag ci ni ñu koy présenté moom moo nekk ex bu Leeral TV bu ñu ko waxee mooy nekkatu fa dafa jóge waaye gisoon ab bu doon circuler comme dafa ñëwaatoon ci li nga xam ne nii moom moo di interview interview bi nga xam ne Adji saar defoon na ko niki rek mois de mars digganteem ak Ousmane Sonko ca leeral lool dootuñu ko wax parce que euh, loo xam ne nii la lu ñëpp yëgoon la ba tax na dañuy daal di ànd ak waa régie daal di ñëw ci vidéo bi nga xam ne euh, bi waral moomoo ñëw fi tey indi woon nañ ko niki mardi bi passé xool ko ak Momo doog a dellusiwaat ci plateau bi ngir gën koo càmbar. première interview bu ñu njëkk a def aji Sarr dañ ñu ne dinaa la ko wax tey. dañ ma ne woon bul ko wax mais li tax teguñu ko c'est parce que le procureur a la vidéo mu ni il y a des éléments d'enquête bu leen ko jàllale te bu ñu ko jàllale woon justice dina tegu suñu ndodd loolu tax on n'a pas pris l'initiative ñu jàllale ko moom moom dafa nag maintenant maintenant dafa nag dafa nag ay vidéo dafay dugal dafay dugal Adji Sarr dire war na ko ay vidéo loolu pour man dafay dugal aji Sarr loo xamante ne mais euh, procureur dafa ko waxoon ne ko moomoo yéen leeral naka lay defaree émission dem di ko tegali procureur loolu bon sens la am. mais mais mais mais. xaaral nga bi Ousmane Sonko defee déclaration ba pare. dañoo bind ci suuf ñu ne Adji Sarr va répondre à Ousmane Sonko dans un instant. je sais pas si tu te rappelles. effectivement. boobu lañ doon teg mais procureur il est en léegi procureur seetaan. il regarde. procureur il il regarde. xam nga il a saisi il a di teg lan di teg. ñu mhm. woon ko ko mu ne lii bu leen ko teg dafa am ay éléments. non doucement doucement moomu. procureur day seet non doucement rek déedéet du ma gis ngeen noonee la demee ci vidéo bi niki nag euh, ab mardi bi weesu video boobee la ñu indi waaye ñun ci suñu ay kàddu la ñu reprendre na dañu am habitude à chaque fois di reprendre li nga xam ne moom la ñuy gis ci li nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi moom moom lii say kàddu la wala dañoo dénaturer vidéo bi wala dañ laa dëppal wax ji nga xam ne nii moom nga wax ci biir euh, vidéo yi waa Coro euh, jërëjëf déjà lii samay kàddu la c'est émission bu amoon d'ailleurs hmm. émission boobu par vendredi je suis chroniqueur là-bas. mais jour boobu dama jëloon place invité parce que l'invité n'était pas venu. mais interprétation yi moo moo moo moo wuute ak li nga xamante ne moom mooy la vidéo parce que boo xoolee sur la toile da gis ne ñu ci bari dañu jàpp ni euh, dañu dem interviewer Adji Sarr mooy la deuxième interview mooy bi mu def euh, bi mu def bi mujjee def te mu muuru mu toog ñu ci bari dañu jàpp ni boo gisee mu am ay kët dañ ko yóbbul procureur procureur xool ko euh, ne lii génne leen ko lii dindi leen ko lii bàyyi leen ko ci moo tax mu am ay kët tel na pas le cas donc dafa am ñaari interview yoo xamante ne defooloon nañu ko aji Sarr ci jamono ji ñuy nekk foofu mhm. la première interview mooy juste bi plainte bi duggee ba Les ko génnee ko Euh, le 2 je crois xaw ma non le ay côté le 3 le 4 le 5 semaine boobu daal. Mhm. la ko les ko def euh, à la une. Mhm. ñun ci semaine boobu la ñu def interview suñu première interview ak Adji Sarr laataa Ousmane Sonko di wax donc on a eu à joindre Sonko jotuñu ko. Mhm. man personnellement maa ko woo téléphone mu sonné dans le vide ma woo un de ses proches mu ne ma mën a guñ cee wax parce que euh, président waxagu ci. d'accord après par la suite ci la ñu am Adji Sarr ñu am interview ak moom. mooy mm-hmm. première interview bi. Mm-hmm. maintenant bi Ousmane Sonko defee conférence de presse ba pare ci la ñu naroon a teg vidéo boobu nag maintenant ci vidéo boobu ci la ñu ne dafa am ay éléments d'enquête maanaam boobu PV yi fuiteegul woon ci la procureur ne lii mu wax nii ci vidéo yi daf ko wax ci PV yi. donc ay éléments d' enquête la puisque dafa am ay éléments d' bu leen jàllale vidéo bi. maintenant bi événement mars yi amee ba jàll maître El Hadj Diouf saisir ñu saisir yeneen télé yi ne euh, Adji Sarr dafay def déclaration. Mhm. maintenant ci la ñu dem une deuxième fois jël déclaration Adji Sarr boobu ñu ñu jàllale ko. mais nag la deuxième déclaration de Adji Sarr mooy l' interview bi nga xam ne moom la nit ñi seetaan euh, yoonu procureur nekku ci yoonu keneen nekku ci ñun ñoo ko dem jëli jël aussi initiative. ne dañu koy jàllale ñu jàllale ko tel ni ñu ko jëlee noonu lañu ko jàllalee y' a pas eu de montage d' mm-hmm. accord euh, kon bu ñu déggee say wax mooy diggante ñaari vidéo yi dafa am sax différence boo xam ne nekk na ci ay jours. waay dañoo jël ci jour bi tegoo toogaat ay jour doog a jël deuxième vidéo bi. donc yow premier vidéo bi nga wax ni moom la procureur wax ne yaa des éléments d' enquête looloo tax jàllale woo leen ko. waaw ngeen jàllale deuxième vidéo bi. d'accord loolu leer na naañ d'après li ñu li ñu li ñu doon wax diggante mardi ak léegi. Mm-hmm. mais bu ñu ñëwee ci li nga xam ne ni moom moo di ci fond waxtaan bi euh, ngeen jël deuxième vidéo boo xam ne ni tey jii euh, élément d'enquête yi ngeen ne moom ngeen euh, waxoon ci premier vidéo bi da ngeen ko mm-hmm. bàyyi mais est-ce que aussi deuxième vidéo bi amul ay élément d'enquête. Mm-hmm. est-ce que amu ci loo xam ne nii xam ngeen ne lii kat ay élément d'enquête la mais force ngeen pour pour pour jëf interview bi. no parce que li mu wax ci première interview bi. moo gën a garaaw li mu wax ci deuxième interview bi. ah bon je l'ai dit je le répète. kon deuxième interview bi. am na lu gën a garaaw loo deuxième interview bi garaawul. bon man li tax ma jël initiative ci jamono jooju ñoom ñi fa nekkoon journaliste yi bi ñu génnee ñoom ñëpp dañ ne duñ ko jàllale. Mhm. je dis à mon patron nañ ko jàllale. premier bi lañ wax duñ ko jàllale wala deuxième bi non premier bi ñun kese ñoo fa nekkoon y avait que leeral première vidéo interview bi. d'accord y leeral. Mhm. ma ne nañ ko jàllale parce que li mu wax ci première vidéo moo gën a garaaw. fii waxu fi dara pratiquement te wax naa ko nee naa gars yi attendez-vous à ce que leeral teg vidéo parce que mu ngi ko am ba tey mais li mu wax foofu moo gën a graaw li mu wax pour man deuxième vidéo bi waxu fa dara dafa rek mais li wax ci première vidéo bi dafa dugg ci fond dossier bi dafa dugg ci lu baree baree bari ci li nga xamante ni moom la jàpp ne loolu moo ko lié ak Ousmane Sonko. Mm. wax na te boobu ñaari journaliste ñoo ko seexoon yu jigéen. doon ko poser ay question muy répondre mhm. indi ay éléments de réponse ci lu bari donc je trouve que ñaari vidéo yi am na différence non seulement ci temps mais ci contenu aussi ci contenu te man su ma fa nekkoon ba tey euh, quel que soit alpha vidéo boobu du génn su ma fa nekkoon ba tey Mm-hmm. du damay damay jàpp ne vidéo boobu warta génn mm-hmm. parce que vidéo boobu li wax mais mu yow li tax nga indi wax ji ci vidéo bi ñu doon seetaan léegi mooy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi nga xam ne dafa génnoon ne Adji Sarr daf ko wan ay vidéo ak ay audio yoo xam ne nii daal day gën a compromettre kii di Ousmane Sonko yow nga ñëw weddi loolu ba mu set nga ne bu ko waxee it amul day dugal Adji Sarr yow pourtant teggi nga waxi waxi waxi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi lan nga mën a teg suñu loxo loo xam ne nii Euh, bokkul ak vidéo bokkul ak audio waaye loo xam ne ni lu garaaw la loo njëkkoon a jël lu dul deuxième vidéo bi. non xam nga dafa am lu am euh, il faut ñu xam bu ñuy wax coow vidéo vidéo dafay mel ni. man bi ma nekkee leeral dañu amoon ay vidéo yoo xamante ne ce des vidéos obscènes wala des images obscènes de Ousmane Sonko Adji Sarr moom ci ay ci ay manœuvre ça je le dis je le répète parce que gis naa ko il a eu voir des des images d'Ousmane Sonko ça je l'ai dit euh, parce que. yow gis nga image yooyu il faut aussi ma préciser benn affaire. mais il ah? faut <laughs> ma question mhm. il faut ma préciser benn affaire. Mhm. man euh, comme ni ko nit ñi di waxee. Mhm. amul kenn koo xamante ni maanaam fay na ma wala wala mën na maa fay ci sama métier bi may pour ma def loo xamante ni c'est-à-dire. Euh, bokkul ak éthique ak déontologie parce que je mm. suis journaliste aussi. Mm. d'accord euh, du ma wax. wala du ma créer ay sos du ma wax loo xamante ni wóoru ma. d'accord moom mm-hmm. moo li mu la posé dafa am solo. voilà ci foofu laay ñëw mm-hmm. Mm-hmm. foofu laay ñëw foofu laay ñëw foofu laay naa nee naa leen Adji Sarr bu jàppee ci procès daaw ba ren te buñ déggee interview am yi mu ni état bu Sénégal daf ko lâché dañoo ragal Ousmane Sonko bu jàppee ci procès daaw ba ren c' est parce que am na ci lu mu jàpp ci lu dëgër ba tax mu ne day dem procès tout comme ni Ousmane Sonko amee ay preuve ne am na ay loxo politique yu nekk ci biir dossier bi. léegi ci li mu jàpp ci lu dëgër loolu yow ci laa confirmé léegi parce que tu as dit que gis nga ay image yoo xam ne nii mais yan image la exactement. yan image la loolu moom <laughs> non yooyu je préfère je préfère pas mu dugg ci euh, ci ci ci ci fond bi parce que euh, comme euh, ñu ngi commencé entendre li nga xamante ah, ci fond bi nag yëf non non xam nga lan mais mais aussi Momo yow da nga ne Adji Sarr yor na loo xam ne li tax mu téye ba mu dëgër moom yor na ko yow tu daa tu as dit gis nga gis nga tu as dit aussi gis nga li nga xam ne ni moom la yor je dis je confirme donc yaa ngee yaa ngeek euh, euh, loolu. ay preuve ay preuve yoo xam ne ni yow leer na la lii convaincre na la. non non non. wax naa ne xaw ma loolu mën na nekk viol xaw ma mënta nekk viol c'est pas mois de dire que loolu viol la wala du viol léegi bi ñuy waxtaanee bi ngeen di waxtaanee kaaw viol yi am na question bu fi bu fi jub euh, nga séq ak jigéen mu xëy ñëw ne da nga ko violé alors que amoon na consentement am. Hmm. da ngay gis ñoo xamante ne sax dañuy piéger ay nit fexe camoufler seen benn caméra ñu fexe simuler li nga xamante ne moom mooy moom mooy refus boobu noonu. pour ñu wax àtte ne viol la. mais mais xam nga man fu may waxee. Adji Sarr wax naa wax naa ko depuis daaw nee naa leen Adji Sarr bi mu njëkkee porter plante dañ ko wutloo ay preuves dañ ko wutloo ay preuves. et mm-hmm. a fait des manœuvres. donc foofu laay waxee ni foofu laay waxee ni peut-être Ousmane Sonko euh, en tant que leader politique def na ay erreur parce que jotoon na ay alerte bu yàgg ni nit ñi ñu ngi koy topp te boo moytul ci affaire mërs dinañ ko ci dinañ ko ci dinañ ko ci jaaree. Mm-hmm. Mm-hmm. dinañ ko ci fexeel ba mu ko yëgee ba mu ko yëgee la waroon a bàyyi fréquenter Sweet Beauté. mais mais mais kon loolu bu ñu sukkandikoo soit Adji Sarr dafa yoroon téléphone boo xam ne mi ngi doon filmer wala muy video soit wala boo xam ne da koy jëlee image ndaxte bu ñu fàttali ko ci enquête bi Pape. Mhm. gendarmerie dañu ne gisuñu fa caméra de surveillance boo xam ne ni war naa mën a génne ay image yu xewoon foofee. Mhm. comme sari sari man côté côté boobu noonu nga nga nga nga kiiwee sax man foofu laay foofu laa bëggoon intervenir. Mhm. c'est-à-dire que euh, c'est vrai. commencé nañ leen déglu déglu ci enquête mais yow en tant que journaliste loolu tënku la. tënku la moom pense que cest à dafa am wax boo junj mu jaxasoo si xelu nit ñi. ñëpp jaxasoo xamuñu de il s'agit parce que ñoom tamit dañu am droit à l' moo gën nga leen di bàyyi dans le parce que ñun journaliste secret de l' tënkuñu. Mm. ça ne pas dire que ñu leen di woo di leen déglu que amuñu droit wax si. donc cest dafa dafa dafa enregistrement bu ñu yóbbuloon procureur pour mu décider lii génn ak li war a génn lu warul génn foofu le procureur a violé la loi du procureur bi fi nekk nii nag il faut préciser du procureur bu bees bi fi nekk ancien procureur bi la. parce que procureur xam na ne Adji Sarr dafa bokk ci dossier bi te warul wax. donc bu joxe ndigal pour que loolu génn moom procureur ancien procureur bi fi nekkoon violé na loi. parce que Adji Sarr secret de l'instruction daf ko tënk amul droit wax te wax ji mu wax kaso mën na ko ci fekk. Mhm. ñaareel mbir mi tamit mooy. mooy comme li ñu wax ci vidéo bi rek def kii ba pare dem di pour que procureur décider lu jàll ak lu war a jàll loolu pour man preuve complot la. parce que ça veut dire que di xool li leen arrangé li arrangé justice. Pape Pape man beneen preuve du complot parce que ñun journaliste man du ma def sama interview wala kii sa pare dem di xool ku may décider lii gën ak lii man journaliste maay apprécier bu censure di am maa koy décider sama bopp mais du ñeneen ñoo may décider di ma censurer li war a génn loolu pour man day confirmer opinion bi nga xamante ni sénégalais dañ ko am. surtout ci média boobu noonu di leeral. surtout ñi war a nag àtte ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diggante bi war a àtte ñaar ñi. d'accord d'accord ñu bàyyi ko mu waaw dama mu ñëwaat foofu rek fi Pape Ndiaye daan na leen ci question bu njëkk bi waaw ci premier si question bu mujj bi hmm. genre nga leeral est-ce que exactement après bi ngeen defee enregistrement. naka la demee parce que yaa ngi lay wax ci biir. ba dem ca ca procureur mais mais wax ji dafa xawoon jaxasoo ci biir plateau yi ba on ne pas comprendre est-ce que en réalité c'est le procureur qui vous a appelé bi ngeen di jàllalee euh, euh, ba bande bi ngeen indil ko loolu. mu xool ko ne bu leen ko jàllale. Mhm. wala c'est vous qui ay pris la la la précaution ngeen dem yóbbul ko wala c'est comment naka la foofu dem. voilà exactement euh, bi ñu enregistré ba pare bi ñu defee Adji Sarr va répondre à Ousmane mhm. dans un ñu dem ba déclaration Ousmane Sonko jeex euh, le PDG mappel pour ma diir que video Adji Sarr nañ ko bàyyi mu jàll nañ ko bàyyi duñ ko jàllale nañ bàyyi ba beneen yoon bi ñu demee ay fan ci la ne ma le fekk que jàllale wuñu vidéo bi te du ma ko jàllale procureur moo woo ne ma euh, vidéo bi dafa am ay éléments d'enquête bu ñu ko jàllale le PDG mhm. bu ñu ko jàllale ma ne ko aawooy ah mu ne ma waay te am na ci droit parce que bi mu ko gisee euh, woo na laaj ma lu nekk ci vidéo bi j'ai expliqué li li Adji Sarr wax yëpp du début à la fin. Mhm. donc mu ne loolu ay éléments d'enquête la et je précise que. c'était le 3 c'était le 3 ou le 4. le le 3 ou le 4 la je précise ça c'était entre le 2 le 3 le 4 mhm. boobu. coow li mu ngi doogay mu ngi doogay génn. ci mhm. moment boobu la ñu am interview boobu boo xoolee sax interview boobu dañoo muur kanamu Adji Sarr bañ nit ñi mhm. xàmmee ko. parce que moment boobu kenn découvriragul woon Adji Sarr. kenn xamagu ko woon. li tax ma xam man Sweet Beauté mooy Sweet Beauté dafa am tele bu mu dendal loon. bi muy nekk foofu noonu ci ginnaaw gudret bi foofu dama fa liggéey pendant plus de quatre ans. moo tax bi ñu bi ma gisee plainte bi ñu bind Sweet Beauté automatiquement ñu ci bari ci journaliste yi man maa leen ñu ci bari maa leen wan fii Sweet Beauté nekk. donc looloo tax ma xam Sweet Beauté. donc yow journaliste bi nga xam ne yow yaa demoon defi interview bi sa DG di daam Dieng moom moo la xamal ne la procureur nee na bu ñu teg vidéo bi. je ne suis le journaliste qui a fait le l'interview. kan moo def interview man. ma wax la ne j'étais le directeur des programmes. Mhm. man maa nekkoon le coordonnateur général maanaam directeur des programme en même temps le rédacteur en chef mhm. ñaari fonction yooyu laa doon cumulé mhm. ñaari j'ai choisi deux fii ñoom ñoo dem defi interview bi ok donc bi ñu ñëwee aussi def interview bi ñu ñu récupérer éléments yi téye ko parce que bëgguñu woon mu fuite te comme am nañu secret bu mel noonu te am nañu l'interview ñun kese kese kese ñu toog bi ñu monté vidéo ba pare ñu denc ko c'est-à-dire man xam nga xam nga la mooy sama problème c'est-à-dire que le ñuy xool euh, cest à bu arrangé état ñu génnee ko ak leneen lu ñu dul génne man c'est-à-dire loolu moom moo ma moo ma xaw a kii moo tax may com may interroger wu est-ce que man personnellement en tout cas personnellement de de février 2021 à juin bi ma fay jugee 2021 amul benn instant man en ce qui me concerne directement amul benn instant boo xamante ni participer naa wala xam naa ci koo xamante ni dafay complot Ousmane Sonko et je suis journaliste su ma ko xamoon dama koy wax. quels étaient vos rapport ak ak ak euh, euh, Maître El Hadji est-ce que d'habitude daan ngeen am ay ay ay ay link daan ngeen communiquer souvent en tant que directeur des programmes surtout euh, sur dossier bi mu bi mu tàmbalee est-ce que souvent daam daan na la jox ay instructions portant sur. nga dem waxtaan ak moom ci ci dossier bi. non ak lan moo taxoon mu démissionné ok ok ak démission dam dam dam est que démission bi ah, ah, jar na ko. parce que ci loolu la tukkee aussi ci lii la tukkee parce que. jar na ak ak maître El Hadj comme journaliste yëpp ni ñu amee relation ak euh, maître El wala ak les hommes politiques wala ak les avocats relation boobu laa am ak maître El moom laa am ak yeneen yeneen yeneen kii amul benn instant boo xam ne daan naa waxtaan ak maître El Hadj Diouf. à moins que ñu soxla ko interview moo woo ko des fois sax duma ko jot des fois journalistes yi ci yéen jëmmi bopp ñoo koy jot pour interview wala pour émission ak moom mais mais dans le cas de de de Adji Sarr bi Adji Sarr waree def sa déclaration maître El Hadji moom moo woo presse bi woowaale ñu ñun ne ñu Adji Sarr dafay def point de presse. Mm-hmm. ñun 15 heures la ñu bind ne 18 heures dinañ teg Adji Sarr en direct en fait. looloo taxoon ma forcé ne nañu jàllale interview bi parce que dañu ne woon 18 heures bi ñëwee ba foofu Adji Sarr wàcc ay 19 heures maître El Hadj ne mënatu leen ko def direct parce que affaire yi commencé naa fuiter jël leen li ngeen di jël su demee ngeen doog ko jàllale. looloo tax ñu def foo direct boobu mais amuñu benn relation particu amu benn relation particulière ak maître El Hadj Diouf. d' mais ci yàkkamti bi ngeen yàkkamti aussi ba teg vidéo parce que yéen nee ngeen comme say wax ba boobu ba tey. wax nga ni bokk ngeen ak yeneen ci ay euh, ñoo xam ne këru taskatu xibaar lañ alors que yéen rek a génne ñooñu génnewuñu mhm. ak qualité vidéo bi ñu gis yéen ngeen teg ko est-ce que aussi amuloon leen loon doon njëkkante ba tax ngeen génne vidéo c'est seen moroom génne wuñ ko lan ngeen ci doon xaar amul genre public reportage non amul contrat yéen ak euh, non y'en a pas ok est-ce que est-ce que nekkuloon ci loo xamul tam lu ma xamul wala li doon dugg yëpp ak li doon génne yaa ngi doon yëg. en tant que coordonnateur. en tant que coordonnateur c'est-à-dire man ci li ma peut-être loolu xam nga les patrons de presse seni relation mënoo xam munoo comprendre. Mhm. daam mën na toog 3 mois yoo xam ne du teg tànkam ci télé bi doo ko gis. Mhm. bu ñu waxee lu tax dama démissionné woon rek lépp leer. waaw xaaral ma ñëw waaw non non xaaral ma mhm. bi dinaa dinaa ci ñëw parce que. voilà bu koy wax débat bi di ferenkulaayoo. voilà démission ma ñëw ci démission bi. Euh, démission bi li ko indi mooy. man je suis journaliste politique. je suis journaliste politique dama am rapport ak politiciens yëpp. politiciens yëpp laay waxal. ñoom ñëpp. ku ci nekk maa ngi wax ak yow maintenant euh, biir Pastef dama fa am ay promotionnaire ci biir Pastef dama am ay promotionnaire am fa ay xarit aussi. te damay waxtaan ak ñoom. bi interview bi jàllee sax am na ñu bari ñoo xamante ni mu jaaree nañ fa waxuñu ak man maintenant dama toog ba benn instant mu am benn benn benn benn silence bu ndaw sama diggante ak. ak Dame mhm. silence bi après bi ma jugee leeral bi ma toogee ba ba xool laa comprendre lan moo waraloon silence boobu jamono jooju parce que tout simplement maa ngi waxtaan euh, maa ngi waxtaan ak ak il fallait que mu xool mu settantal sama relation ak waa Pastef ak waa ñeneen ñi ku ci mel ni Sadikh Top affaire yooyu noonu on benn écho comme quoi que ne Sadikh dafa am lu muy waajal lu muy waajal leeral man gis nga vérifier information dafa maa jaral lu ne jalal na ma ma bàyyi ci sama bàkkan information bu fiable. d'accord pour ma am ko. Mm. maintenant je suis ma ma dugg Facebook rek ma gis sa Sadikh def benn publication ma envoyé ko message ma ne ko xanaa da nga yëg sama sama démission bi sama arrêté en tant que coordonnateur ci biir ci biir groupe mu ne ma noo yëguma ko après ñuy expliquer mu ma. il faut euh, faire benn témoignage boo xamante ni da ngay wax ni daam daf leen di exploiter daam dafay def lii daam dafay def lee parce que l'ex coordonnatrice waaw parce que l'ex coordonnatrice ki nga xamante ni moom nga remplacer kooku am naa accord am ba euh, moom dina def benn témoignage mais ne ko su ma defee témoignage contre Dame Dieng dina am leneen lu nga xamante ne moom lay moom lay indi déjà man maa ngi ci biir boîte bi beneen beneen yoon mooy vous avez affaire à des gens très dangereux il faut faire très attention ñu waxtaan bi may waxtaan ak moom xamoon naa ne un jour ou l'autre dinañ capturer message yi bi ma paree automatiquement mu tombé juste nag suñu accident bi. am mm-hmm. bi ñu demee bi ma demee Fuuta ci enterrement Abu Mamadou Si yàlla na ko yàlla yërëm xare ko mm-hmm. àjjana bi may ñëw ci la ma daam woo da nga doon waxtaan ak Tade Sadikh Top ma ne ko waaw mu ne ma li ngeen waxtaan yëpp xam naa ko. ma ne ko je ne sais pas xaw ma fan nga jaar ba xam ko. ma capturel ko message yëpp ma envoyé ko ko. ma ne ko man je n'ai rien à lii laa waxtaan ak Sadikh Top daam. xaw ma daam moo ko bind xaw ma keneen moo ko bind. Mhm. mais gis nañu leeral bind na benn article boo xamante ni il a attaqué Sadiq Top. Mhm. Euh, maa ngi ci yoon bi aw ma réseau dugg naa ci Facebook gis Sadiq Top def benn benn benn kii benn publication. ci mhm. lay appelé jotuma ko. durant tout le trajet aw ma aw ma connexion bi ma ñëwee ba yegsi ci laa gis na Sadiq capturé na message yi ba dugal ko sur la toile gars yi ko comme quoi que ni bon voilà expliqué wax ma Euh, loolu commencé jur malaise ci biir rédaction bi. Mhm. donc ma démissionné ma njëkk a démissionné. Mhm. daam ma tu vas nulle part da ngay toog je te réitère euh, mon ma ma ma confiance et mon soutien. Mhm. da ngay toog ñu continuer liggéey. ma ne ko kon je vais je vais arrêter d'être le coordonnateur général. d'accord de temps bi mi ngi jeex. c'est li ñu bëgg a xam mooy est-ce que démission bi c'est lié à l'affaire Adji Sarr. non non non no non man déjà bi accident bi amee laa bëggoon démissionné. mais kon li nga wax ni c'est contradictoire ak li nga. Ah, non non njëkkoon nga wax njëkkoon nga wax ci raison démission yi. non mais. li nga wax nii ute lan wax. lan nga njëkkoon wax. <laughs> non expliquer mais mën naa koo wax li ma njëkkoon a wax Pape ah? <laughs> li nga njëkkoon a wax mooy. dangaa jokkoo ak Sadir Top. man démb rek maa ngi doon dégluwaat. waaw loolu expliqué naa la ko léegi loolu laa la wax léegi. waaw mais mais du question danga nga bëggoon a démissionner far Sadir ne la dégg naa sa démission. nga ne ko est que du sama démission bi nga dégg moo tax nga jël ma. non dama ne. c'est-à-dire dafa bind publication. bi mu bindee publication am lu mu wax ci publication bi ma jël ko après naa la envoyé message yi message yi ma waxtaan ak Sadiq Top. Mhm, mhm. dinaa ko capturer ma envoyé ko donc. c'est dommage bi jeex non moment ah, boobu gis nga moment boobu cest à boobu nee naa la dafa amoon froid sama diggante ak Dame Dieng. mais mais beneen question avant avant may waxtaan ak. Sadiq bi ngeen toogee di def interview bi. Adji dafa leen ne woon dafa ëmb. bi ñu toogee di def interview bi ci liñ gis ñun. dafa ne woon dafa ëmb. mu ne dafa bi mu ne bi mu bi mu bi mu xamee ne dafa ëmb dafa dem ci euh, patron bi euh, mu ne ko jëlal café ak xaw ma kola xaw ma nga yàq. mu yàq ëmb c'est c'est c'est c'est dommage temps bi dafa jeex mais moment boobu noonu. après bu ñu amaatee temps bu large dinaa la expliquer. Mhm. Euh, ci loo nga xamante ne du du du ci caméra wala après le recul. li ma gis ci li ma xam ci affaire yi mu tàggatoo vraiment peut-être waxtu bi waxtu bi moo moo ci xaju ñu bàyyi la très rapidement nga daal tàggatoo donc di la di la jaajëfal euh, di jaajëfal ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi seetaan et coro dossier bi mm-hmm. xam naa ci loo nga xamante ni su ma ko waxoon tey très bien bu subaa ñu jël si. très bien alors Coro bu ko wax Coro Coro lu doy wax la lii moom xam naa ne suite lañ koy def moom li ko tënk li ko tënk ab journaliste la li ko tënk du question loo mënti wax rek dañ lay jël am na lu la tënk leneen bu ñu paree mën nañ laa waxtaan ak yow di am mbégte rek ak contenté jàkkaarloo woon ak téléspectateur leen jox dig daje incha allah niki suba maire yeeg paa ñoo maire yeeg paa très bien di leen jaajëfal bu baax a baax yéen yi nga xamante euh, la remercier toute l'équipe Petit Déj euh, li ko dalee ci Adjaratou Penda Gueye ki nga xamante ni mooy Kéba Pape Samb Babacar Diouf euh, ni ki noonu di leen jox rendez-vous euh, waa équipe Pape ak mère paa yi ak mère yi suba incha allah ñu ñëw defaat incha allah.